kon neex na ba noppi xale yi soyez vigilant te ngeen def li nga xamante moom la euh, président yi bëgg bu leen yóbboote seen téléphone si centre wala soo leen demee dénkaane leen ko si buntu yi si boutique yi wala ñuy jaay yéen a xam ngeen dugg def seen examen si jaamu génn jour délibération ñu délibéré mu jeex ñu jàll si suñu deuxième point ñu ñu xam le ni le patron du groupe de presse euh, Kewoulo moom moo ngi annoncé Euh, que ni euh, convocation ba ñu defoon Babacar Touré à la section de recherche de Colobane daal nañ koy reporté. Mhm. Euh, ba beneen yoon journaliste boobee nag dañ ko waroon interroger dans le cadre. de l'affaire Marilo Marilo nag nekk doom si Ismaïla Lo ku ne xam ne dañ ko arrêté woon ay jamono pour escroquerie Babacar Touré nag exprimé exprimer na son étonnement face à à ce report ce mandat de si Euh, se demandons si Dior Diagne mi nga xamante ne mooy. Euh, jabar mhm, si si si Antoine Félix. Mhm. avait reculé ou si les autorités ne voulaient plus l'entendre euh, plutôt il de il avait informé l'opinion de sa convocation par la section de recherche précisant avoir donné la parole à des personnes escroquées par marilo loolu moom moo tax moom ñu convoqué woon ko. maanaam ay nit yoo xamante ne Marilou daf leen naxoon si wàllum xaalis dafa dem interroger leen ñu daal di koy convoqué waaye reporté nañ ko la section de recherche de la gendarmerie nationale avait ouvert une enquête suite aux répercussions de l'affaire Marilou celle-ci impliquait des sommes d'environ 600 millions de francs CFA euh, prétend Euh, nii euh, dafa am ay liggéey yoo xamante ne moo ngi koy def si biir interrogation boobu nag moom Marilou dafa dafa dugaloon ñenn si si si parti ñi nekkoon si parti au pouvoir si wàllu escroc ku si mel ni Antoine Félix Diome ak euh, Dior Diagne en réponse nag Dior Diagne avait porté plainte contre plusieurs personnes dont des journalistes euh, toute implication dans les dans l'escroquerie l'enquête visait à déterminer son rôle exact tandis que les victimes cherchaient à récupérer leur argent coow li nag dafa dafa mujjee am doole ndax Marilo ba mu ñëwee dafa dugalaale ñenn si ñi nga xamante ne ñoo nekkoon parti au pouvoir. Mhm. ku si mel ni Dior Diagne ku si mel ni Antoine Félix Diome si wàllu escroquerie boobu. ba tax na mhm. Dior Diagne wëlbatiku moom tamit porte plainte ay nit yu bëri ba si ay journaliste mhm. ki nga xamante moo di Babacar nag Touré li taxoon ñu interro ñu woo ko pour interroger ko. mooy dafa demoon di interroger ñenn si ñi nga xamante ne ni euh, ki nga xamante moo di Marilo. da leen da leen tudd daal. waaw daf leen daf leen daf leen daf leen naxoon en tout cas euh, genre yu mel nii moom il faut mm-hmm. que journalistes yi def ci très attention mm-hmm. parce que tamit Euh, c'est des euh, choses yoo xam ne si nii. Mm-hmm. te mën na la ci porter plainte. Euh, indi la ci ay jafe-jafe ci sa euh, liggéey te mën na ko bañ a mën na ko mën na ko bañ a jar man jàpp naa ne su fekkente ni da nga nekk ci benn dossier nga nekk di ci liggéey. waaye ñun des fois dañuy publier dañuy publier information te information bi du mat dafay des. Mhm. journaliste bala ngay publier information war nga def recoupement. Mhm. vérifier def lépp bala ngay publier mais su fekkente ni tey dañoo ñëw Marie Lo jox la information rek nga publier ko. mu tudd ci euh, ci Antoine Diome tudd ci mm-hmm. maître Dior Diagne nga jël ko publier dugal ci seen tur bu ñu la porté plainte da dugg mm-hmm. su ma mm, Marilou mii joxe information ne ma nangam ak nangam ak nangam tudd ci maître euh, tudd mm-hmm. ma woo maître Dior Diagne ne ko nangam ak nangam nangam ji kat am na te nang tudd nañ la ci loo ci xalaat mu jox la sa mu jox la sa xalaat nga bind boo ko jotul nga noté ne jot woo naa ko jotuma ko woo def la la def de même que. Euh, Félix Diop Félix Antoine Diop Antoine Diop. Mm-hmm. laaj ko ci tamit nu mu ko nu mu ko nu mu ko gisee. Mm-hmm. mu jox la ci xalaatam su ko soo ko jotu nga ni joto mais mënuloo ñëw tey mariloo mii rek jox la information. Mm-hmm. nga ni ko dajgituñ ci ay nit te xamoo lam la jox ndax dëgg la wala du dëgg vérifié woo ko. donc il faut ñu def attention aussi ci li ngay def def preuve euh, de professionnalisme. ñu ñu ñu bàyyi. teel dégg teel rek ne damm na wala ñuy jox maa ko njëkk a ñuy balancer ay informations yoo xam ne si nii yow recoupé woo ko euh, vérifié woo ko nga dem mm-hmm. publier ko

relation bi kaaw bi sax parce que kaaw Marilo bi dafay wax de manière générale tey mm-hmm. yedd la comme ni ko Mahfouz waxee mm-hmm. mu mën a yedd suñu mbokku taskatu xibaar yi mm-hmm. <coughs> bu information amee excuse-moi ñu xam nuñ koy joxee ak nuñ koy bàyyi luñ ñu dégg rek man maa ko njëkk a wax man la ko Marilo wax tey jii tax na mu dugal boppam mais loolu c'est mais loolu c'est le c'est c'est c'est le b.a.-ba du journalisme loolu su fekkente ni ndeyaat mi dafa wax ci information ci jaara maam jaara mii bala maa joxe information bi war naa woo jaara waaw laaj am ci lu ma leer. jaara jaara wax ma ma ma def ma def sama recoupement. Mhm. soo ko di bind li may bind. Mhm. publier mais mënu ma ñëw rek. Mm, euh, ndeyaat la ma jaara de def na nangam ak nangam moo sàcc fii moo dugg fii moo. nga jël ko daal di bind ma jël ni jaara dafa triandé dugg na fii mhm. génn fii. damay woo jaar na ko ah dama am information bu ma dégg. ci wàllu escroquerie yu ne mel noonu ñu tudd la ci.